salaamaaleykum ami internet Guédiawaye info donc ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar xam nga di leen màggal lu bare bare yéen a ngi si dans l' émission xooli artist tey jii nii ñu ngi waxinaan kat xool si benn ndaanaan boo xam ne mu ngi fi di def lu nice coiffure biir koñom biir Guédiawaye ñu koy wax reenu rab donc reenu rab la ñu toogal tey fii si émission xooli artiste ak mbay Mbaye Prési euh, salaamaaleykum reenu rab donc ñu ngi toog ak yow donc euh, tey jii nii sama première question gannaaw bañ la nuyoo donc di la gërëm si accueil bi ñu accueilli fii Waxinaan 4 sama première question mooy kan mooy reenu rab dëgg-dëgg kan mooy reenu rab boo ko mënee wax suñu suñu amee internautes yi. pare nga yee salaam salaam salaam quoi di siy sama di bëggee sama gars di bëggee képp koo xamante ni uniquement xam nga et yaa ngi seetaan reenu rab bi di bëggee émission bi di bëggee sama gars yi ma seet si xam nga di leen ne xam rek ren ren moo ngi nii quoi presque mën nañ ne xam et puis depuis 2005 ba tey maa ngi si bagage yi xam nga di ko teewal maa ngi sama gars yi quoi ok ainsi toll na xam nga maa ngi studio di nekk ni di préparé wu sama album quoi. waaw Renu gannaaw ba nga kiiyee donc yaa sa gars yi yéen a ngi si depuis 2005 donc mën nañu xam sa jaar-jaar ak yenn affaires yi nga xam ne jot nga ko génne mën nañ xam loolu loolu quoi sa sa jaar-jaar ak yenn affaires yi nga xam ne génne nga ko depuis 2005. ok depuis 2005 ba tey et maa ngi si bagage ko xam nga <clears throat> di ko teewal xam nga maa ngi def ay single di def ay vidéo xam nga def ay bagage yu gën a bëri quoi di ko di ko génnee quoi xam nga di ko génnee tamit xam nga di ko sànni si internet bi xam nga di ko sànni si rajo bi ko xam nga fii moom gaal seen moom xam nga rek nga ama gën a xam quoi album yomb na yombul quoi yaa ngi def ma tey album yomb na yombul quoi am boo si nekkee da ngay nekk xam nga par jéego def ndànk-ndànk bu egg fu nga jëm quoi mm-hmm. waaw euh, mën nañ xam ñaata single nga génneegum ak ñaata vidéo nga génneegum depuis lors. ok ainsi toll nii moom xam nga presque génne naa lu mat ay 4 vidéo quoi presque génne naa lu mat ay 4 vidéo quoi après benn bi bu njëkk bi moom laa njëkk def quoi moo ngi tudd xam nga bëgguma am doom après beneen bi moo ngi tudd xam nga yaa ko teg sa bopp après beneen bi moo ngi tudd boo bëggee tooñ da tooñ ku la mën ok beneen bi moo ngi tudd ngelaw mbedd quoi. waaw moo man gis naa ne tamit da nga da nga nekk koo xam ne da nga da nga yëngu sa koñ di yëngal hip hop bi di ko fa teewal di fa organiser ay spectacle mais gis nañ année yi que ne spectacle yi nga doon organiser dafa woo nit ñi dafa woo rappeurs yi ñuy ñëw di ko teewee donc xaw na wàññeeku loolu lan moo ko waral. waaw affaire bi du question pour dara quoi mais xam nga ainsi toll ni moom dama nekk si job bi xam nga di préparer wu xam nga di loru di préparer sama album di préparer samay bagage quoi xam nga mais concert ko li ngay faral di wax tamit noonu la ngay gars faral di ñaxtoo di expliquer ne xam nga festival yi doon am xam nga gëj na fee am lu waral loolu mais incha ñoo ngi préparer wu quoi ñoo ngi si bagage yi ainsi mun nañ ne xam nga tooguñu dama nekk si di lëdu xam nga album di si job xam di si bëgg tamit loo xamante ne bu génnee du nekk loo xamante ne day loo xamante ne international lay doon quoi mais kon album yi génne di yem si benn rukk di yem si benn koñ moom vraiment ren rab bi ko noonu quoi dama bëgg bu génnee mu nekk loo xamante ne day def tabac et puis nga day egg fu mu fépp fu a egg quoi léegi loolu war nag mais conseil de moom bàyyoon ko quoi mais ñoo ngi préparé wu ñu ngi waaw gis naa ne aussi euh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi participer anytime si festival international bi ñu naan festival By Europe donc di fa taxaw benn taxawaay boo xam ne et ce que mën naa xam lan mooy sa relation yaag waa ji bopp. waaw mun na ne ji bopp moom presse yi ñu ko sos man si laa bokk ko parce que wax dëgg yàlla moom ñu sos ñu sos ñu sos ji bopp man si laa bokk ba nga koy doog door xam nga ñu koy ñëw ñu ne ñoom malal xam nga yaa ngi de ñoom Pam Ndiaye bëri na quoi xam nga presque ay groupe fi nekkoon ay BNC xam nga di si jéem di si dem di si dem di si dem boobu léegi moom maa mais chaque année moom xam nga dul dara xam nga damay si festival bi dama fay participer dama fay xam nga membre laa fa te bu dul dara xam nga tamit gars yi ràññee na ma fa vraiment man sama festival boobu mujjoon def fii sax ba BNC ñëwoon vraiment xam nga malal moom moo ñëw xam nga jox ma ay matériel am jox ma ay affaire am yëpp nee ma reenu yow garaawul si kër gi nga bokk lépp léegi mënta mënta def ji bopp bi da siy jàpp quoi waaw est-ce que mën nañu xam instant bi man mën naa xam ak nos amis internautes de Guédiawaye Info mën nañ xam Reenu Rab instant yi si yan projet la nekk si si si lan la nekk quoi instant bi nga expliquer ko ñu lay seetaan. waa ainsi moom Reenu Rab moom mën na ne si projet allemand la nekk nii quoi. parce que moom mën na ne institut li moom lépp lu may mënta di voyage lépp lu may mënta di job si album bi laa nekk quoi tamit looloo a ma loru ni après nekk si bagage yi xam nga xaw du mooy affaire yi gën a bëri quoi et puis nekk si job bi xam nga mën na ne album moom yaa ma yàgg si genn bi quoi xam nga si lu bëri parce que dund nga si quoi xam nga yomb na yombul quoi mais moo boo si nekkee ne benn instant tamit xam nga album boo koy lu mu laaj dafa am lu mu àndal quoi benn instant si bagage boobu laa nekk nii xam ba bëgg incha bu génnee nag mu def tabaa ko mais aussi ren mën nañ jàpp ne album bi EP euh, e lay doon wala mixtape wala wala album carrément lay doon. waaw xam nga mën na ne ren bi yàgg na si genn bi quoi bu dul dara ñu koy xaar dafa bëri quoi. parce que affaire mën na ne ren bi du si gan quoi parce que ay messieurs wala ay massi moom xam nga ren bi du ko génnee quoi si dem ba koy génnee moom album lay génnee quoi waaw parce que album moom xam nga moom moom moom moom leen préparé wu def xam moom leen préparé wu pour génnee ko yaa ngi dégg mais pour Mrs wala pour Massi moom vraiment paruma pour loolu quoi kon maa ngi si bagage yi booba léegi et yàgg naa si am na ñu may xaar tamit bëri na te xaar bi yàgg na léegi li may mun def moom album laa bëgg a génne quoi. waaw album boobu mën nañ ci xaar ay featuring wala lépp lépp sa sera Reenu Rap rek moom mooy réaliser album boobu. de fond en comble lépp lépp yow yaa koy réaliser wala mun nañ ci xaar ay featuring ay yeneen artistes yu si bokk. waaw dina am featuring mooy xamante moom après surprise lay doon quoi yooyu moom xam nga et puis di ma tudd tur mais incha dina si gis ay ndaanaan xam nga dina si gis ay gars yu mën lu def quoi te budul dara kon gox bi ma dëkk tamit xam nga konte am na ay groupe de rappeurs quoi xam nga tamit ku lim juum quoi. dañ si gis ay booy gën a bëri ñoo xamante ne ñu ngi si ko woon reenu bi xam ba yàgg teewal hip hop yàgg joobal hip hop quoi tamit yàgg xaar ay bagage su reenu quoi waaw mais dina am ay surprise dina am ay gan yoo xamante ni gars yi mosuloon foog ci côté hip hop dina dina leen dégg tamit xam nga si album reenu rab bi quoi euh, waaw reenu balaa ñëw terminé waxtaan bi defe naa neex na trop donc man sama gaan nga yàgg nañu gisee mhm. mais dama bëgg balaa ñoo tàggatoo ñu wax euh, suñu mekk internet yow Euh, côté actualité bi yow li nga ci gis par rapport ak élection yi di ñëw ak tout récemment en tant que rappeur koo xam ne yaa ngi ci milieu bi tout récemment gis nañ kër gi génn benn tube xam nga di ci di ci wax ay ay ay affaire daal donc mu jur coow lu bari bari bari yow en tant que acteur culturel wala rappeur bi nga xam ne yaa ngi ci biir yow ban vision nga am si loolu quoi. waaw ok man de vision moo am rek xam nga mun nañ ne xam nga test avant mi génn ko si biir kër gi quoi na ko war a yar ba mu yar quoi parce que mun nañ xam nga li ko dundal tamit kilifa la quoi xam nga bu dee dem nga bay teewal leen tamit xam nga dëgg la nag quoi xam nga élection la quoi ni ku nekk tamit ak loo sentir pour wax pour wax quoi mais xam nga mun nañ ne xam nga si njiitu réew tamit xam nga bu dul dara xam nga kon tey kilifa la rek mun na la xaw moom moom moom mën na la papare xam nga pour man tamit cër foofu dafaa war a mot quoi yaa ngi def may déggee dëgg la lépp looy munta dem ak lépp looy munta wax tamit xam nga dafa war a ànd ak cër quoi dëgg la son baax na nga xam nga tamit nga war a teg li ngay teg tamit baax na mais tamit na ànd ak yaru quoi ànd ak yar quoi vraiment quoi man sama xalaat loolu laa doon joxe quoi. kon yow tey sa position yow d' accord si affaire boobu. non du question pour d' accord mu sax mais xam nga du question pour d' accord mu quoi mais dama bëgg affaire bi tamit xam nga <laughs> affaire damaa bëgg affaire bi tamit xam nga ñu teg ko si temps xam nga lépp luy mënti génne tamit ñu teg ko si loo xamante ni tamit day xam nga lii. boo ko déglu day am éthique quoi day am éthique quoi pour man quoi. mais ni ku nekk ak loo sentir quoi mais moom xam nga ŋaañuwu ma leen si xam nga jàppale ma leen si lenn quoi mais ni ku nekk ak loo sentir quoi ni ku nekk ak loo sentir quoi pour man quoi. waaw loolu mu doon euh, benn for message boo xam ne reenu rab mu ngi ko doon jàllale que wane position par rapport ak loolu waa reenu donc l' émission tire à sa fin donc xoole artist ak reenu rab donc tey ji ni lan ngay tëjee ak ban shout ngay tëjee ak ban conseil ngay jox jeunes yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi sa biir koona ñu ngi sa biir quartier te yàgg nga teewal sa quartier man xam naa ci dara tey looy tàggatoo tey. waaw man li may conseil booy rek affaire yi ndànk-ndànk la rek quoi parce que affaire yi moom mun na ne xam nga affaire yi métti na méttiwul quoi mais xam nga hip boo si nekkee xam nga bul tëb a jaar si essentiel bi te jaaroo si escalier loo xamante ne abi baaxul wala li nga def loo xamante ne xam nga parewul benn instant tamit xam nga day génn yem si benn côté rek te loolu tamit nekkul lii def quoi ok ti beneen affaire tamit xam nga mbaɗam salminowa Agnam goli fof mbanɗe men quoi inchallah mum mbaɗen mbaɗen salminowa hoore fode fof mbaɗen salminowa Agnam goli fof kala gonɗo e fouta he bunnane asan mbawi salminima inchallah mbaɗi noon mbaɗam ara inchallah album nana ara noon après paɗe kam mbaɗame lawate quoi mbaɗe mbaɗe Agnam goli naɓeɓe foof yooɓa par quoi asan nana ara quoi inchallah album hambo booyi kono jon joni yetto ara quoi Uh, waaw tey ñu ngi woon fii nii Wakhinane 4 donc seet si fi benn daanaan muy reenu rab ñëw fekk ko koñam donc mu accueil ñu accueil bu nice aussi ñu ngi koy gërëm di ko sant donc lii moo doon seen émission xoole artist ak mbay Prési restez connecté sur guédiawaye info point com ba beneen yoon peace love ñu ngi leen di bëggee